coordonnateur du mouvement Cambérène moo nu ñor waaw tay nak bu ngeen gisee eh, ñu woote ci point de presse fii ci euh dara waralu ko rek lu dul eh, assur bi nga xamanteni depuis 7 ans yi ni ñu fi def ben du projet muy VDN bi wara jaar ñu sellu ni aussi ça fait 2 ans ngi ni liguey baa taxaw té ñun xamanu lan mo waral liguey bi taxaw yalla def bi projet bi du tambalé bi ñu ñëwee waxtaan ak waa Cambérène indi benn ouvrage bu mel nii dafa am benn problème bu causé woon liggéey bi muy benn mur bu ñu fi arrangé woon dëkk bi dañoo jug président Macky Sall jël ndogal li day daaneel mur bi ñu ko si sant di ko ci gërëm bi mu defee loolu. bi mur bi jàllee nag ñu ni dañuy def benn comité de suivi comité de suivi boobu euh, ñi ko ëmb muy Ageroute da ngay fay 5000 walla jëm kaw sinon doo dugg ak Cambérène Ageroute nag bind na leen lettre tontu wóor nañ leen faale wuñu di wax ci ay rajo te xam nañ fi ñu war a ñëw pour wax ak war a waxal lenn rek lañ leen wax mooy ni que télé. weesu nag lan ngeen yéene def. télé boobu bu weesuwul te li leen wax defuñu ko télé bi fii la ñuy baaree Cambérène kenn dootu fi jaar loolu day leer tele boobu bu rombee te ñoom sunu wala waxuñu ak waa dëkk bi dama ni VDN bi laa wax télé bi kenn dootu fi jaar télé bi la ñuy baaree. bunt yi jóge kam yu jóge Dakar dugg fii foo ay man a génn dañ koy baare oto dootul dugg fii si Cambérène ba keroog ñuy réglé li fi ne. bare benn tey baa ngi nii léegi mu commencé te bu commencé tas ba danga koy baare donc oto yi dañuy dévier dugaat fii à Cambérène ñun ñuy euh, di subir loolu non loolu duñ ko fi xaar suñu réagirul semaine ta bi dañ koy baare ah boo baare dinañ xam ne Cambérène bi dooru jug loolu la ñuy wax monsieur ministre Omar moom la ñuy wax président Macky Sall te nag ñu xam ne lii lii du politique pour ñuy toog ci gannaaw naan ay politique da cee ne newu si ñun suñu dëkk la ñuy kaasal li ñuy def c'est légitime il faut que mu leer lii suñu bakkeel lañ ci teg comme ni nga ko waxee woon une lan leen may bu ngeen réagirul tali bi dañu koy baare waaw loolu laa am pour wax leen ko